Seydina Fall député bi depuis euh, daal dinay euh, démissionné euh, ci ndombo tànkuk député ma lool nag gannaaw bañ ko doon laam-laamee moom mu weddee ndis ko woon léegi nag daal nañ koy firndeel ndax waa assemblée nationale génn nañu ab communiqué wax ni moom jébbal na ab lettre démission ñoo ngi ci buumu jokkoo gi ak député Seydina Fall lettre démission boobu ndax mën nga koo dëggal waaw lettre démission boobu dinaa ko dëggal Euh, lu tax ma koy dëggal sànq bi ngeen ma koy laaj période boobu ci loolu laa nekkoon doon si waxtaan ak sama njaboot doon leen sama ñi daal comme que euh, yëf yi dem na ba toll fii euh, ay nit jóg bi yàq sama der di tamay seen tamay seen waajur ma bëgg yoon def liggéey ma yombale leen ko may naa tekki sama ndombal tànk jébbal sama bopp yoon mu def liggéeyam naa tekki sama ndombal tànk ndax ñàkkul ni président Macky Sall am na lu ko gêné ci ci loolu ndax xamewu ma woon loolu musuma ko xamee ay saay-saay jóg nañu def lu leen ne ma ni nag na ngeen muñ te gëm yàlla te xam ni yàlla moo ci nekk moo njëkk te moo mujj ma teg ci sama ndamba tànk delloo ko waa assemblée nationale passeport diplomate bi ma yore ngi nii ak samay passeport njaboot yu service bi sama passeport jabar diplomate ngi nii yooyu yëpp dinaa leen ko yónnee ñu wax tam si yàlla jàpp ci yàlla bu asbunallah wa ni'mal wakiil lu ma def dama naan maa ko def dëgg fu mu fu ma fekk danaa ko wax ci loolu nag laa sukkandiku ma am ngor am ni nguur neex na ndombal tànk neex na waaye sama dignité moom ko gënal sama dignité moom ko gënal sama dignité njaboot moom ko gënal ma ni naa teg sama ndombal tànk jébbal sama bopp yoon yoon def liggéeyam ba lépp leer bu boobaa nag Sénégalais yëpp xam fu dëgg féete.